képp ku bokk ci njabootu yeewi askan wi da ngay wote yeewi askan wi képp ku bokk ci njabootu wàllu Sénégal da ngay wote yeewi askan wi fii ci Dakar mais suñu demee par exemple pikin képp ku bokk ci njabootu wàllu Sénégal da ngay wote wàllu Sénégal képp ku bokk ci njabootu yeewi askan wi ci pikin da ngay wote wàllu Sénégal loolu moo ñu mën a may chance ñu mën a am la majorité kon su ngeen ma mayee ma limal leen. fu ñuy vote yeewi askan wi Dakar dañuy vote yeewi askan wi Géejawaay dañuy vote yeewi askan wi Rufisque dañuy vote yeewi askan wi Kër Massar dañuy vote yeewi askan wi Fatick dañuy vote yeewi askan wi Thiès dañuy vote yeewi askan wi Mbour dañuy vote yeewi askan wi Tivaouane dañuy vote yeewi askan wi Ziguinchor dañuy vote yeewi askan wi Oussouye dañuy vote yeewi askan wi Bignona dañuy voté Yewwi Askan Wi Saint-Louis dañuy voté Yewwi Askan Wi Dagana dañuy voté Yewwi Askan Wi Kolda dañuy voté Yewwi Askan Wi Vélingara dañuy voté Yewwi Askan Wi Louga dañuy voté Yewwi Askan Wi Linguère dañuy voté Yewwi Askan Wi Kaolack dañuy voté Yewwi Askan Wi Sédhiou dañuy voté Yewwi Askan Wi Goudomp dañuy voté Yewwi Askan Wi Kédougou dañuy voté Yewwi Askan Wi Kafrine dañuy voté Yéwi Askanwi. Kungel, Kungel, dañuy voté Yewi Tamba dañuy voté Yéwi Askanwi. Wi Goudiri dañuy voté Yewi Askanwi. Wi Bambey dañuy voté yewi Askan Wi Ranérou dañuy voté Matam dañuy voté Yewi Askanwi. Wi ci luma limni képp ku ci ak voté fofu Yewi Askan mhm. maintenant fu ñuy voté wallou Sénégal ku ci wàllu da nga fay voté wàllu ku bokk ci yeewi da nga fay voté tamit wàllu képp ku nekk Pikine da ngay voté wàllu Sénégal képp ku nekk Foundiougne da ngay voté wàllu Sénégal képp ku nekk Gossas da ngay voté wàllu Sénégal képp ku nekk Podor da ngay voté wàllu Sénégal képp ku nekk Médina Yoro Fula da ngay voté wàllu Sénégal képp ku nekk Kébémer da ngay voté wàllu Sénégal képp ku nekk Guinguinéo da ngay voté wàllu Sénégal képp ku nekk Nioro da ngay voté wàllu Sénégal képp ku nekk Bunkiling da ngay voté wàllu Sénégal képp ku nekk Salémata da ngay voté wàllu Sénégal képp ku nekk Saraya da ngay voté wàllu Sénégal képp ku nekk Malem Odar da ngay voté wàllu Sénégal képp ku nekk Mbirkilan da ngay voté wàllu Sénégal képp ku nekk Kumpentum da ngay voté wàllu Sénégal képp ku nekk Bakel da ngay voté wàllu Sénégal képp ku Djourbel, Diourbel da ngay voté wàllu Sénégal képp ku nekk Mbacké da ngay voté wàllu Sénégal képp ku nekk Kanel tamit da ngay voté wàllu Sénégal donc maa ngi leen di gërëm ci opportunité boobu. parce que c'est une première ma bëgg nga leeral ne bu bu dee bu fekkee da ngay voté wàllu Sénégal aussi da nga fekk bulletin wu yeewi da nga koy war a bàyyi bañ ko jël parce que ñaari bulletins yi ñoo fay nekk. waaw nu ko mbokk yi nañ ko déggee noonu. Euh, euh, bulletin yeewi askan wi ci gàttal daal bulletin boobu rek moo amul photo donc c'est même pas la peine gars dire son sonal un bulletin rek mo amul photo euh, identité photo petit bu te moy voilà fait toujours voilà donc nous gars mais il faut qu'ils comprennent aussi que euh, lii pour les départements.